Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer salaamul laahi laa dikk niyoo aleykum tey ziyaar ak bége ziyaar naa ñépp góor walla jigéen mag ak ndaw keeso rekk ki ma jege ku muy doon fallu jox na la sa cër nga xees mbaa sax nga ñuul yiwe jonge ma ñaanal yokku fan wu di bari ak gu wér sun xalif bi fi tege mbégum lis lam bi nu bëgg ki bañ caaxaan yi sax ba ci mbege ziyaar waa multaqa dale ci seen njiit yaatu nan du nu wonge danoo aar taalif ñi ko bëgg te seenum mbind dàq fi rege na leen buur aar ci mbir mu di lore li fekk gerte ngi man tiga dege bismillahi rahmaani ci barkeb Cheikh Fadilou Laye dooreeti sam mbind tey santaat sëriñ bi nu gëm jox leen ma nopp yi ak seen xel yi déglu bu baax ñii may waxal ñoo di nit ñi seeni xel di xalam dellooti julli ci xayril xalqi ngën gi mbindéef kii ràmb nit ñi keroog bis booba jaam ñi gëlëm maa di dox benn bis seen jenn waay mi nga toog may dox ba agsi ci moom ronkoñ yi dal ci dënnam saa ji lii la fi dal mooy lan waral nga sa ngéem si gil nga tontu ma gaaw saa maam ja mooy fa ma jëm mag naa ma saa ji mag naa ma lii ma fi xëy dal mag naa ma lii ma fi xëy jaaxal ci réew mi la xew toogal ma wax la fi lim doon ndaw li làq nga jom saa wi nee na tëféet saa mi bés ko mu giif lii yóbbu saa wi junniy fit la fëkk ñu dem kenn tëddatul bay nelaw yàndoor ku nekk a ngi tiit ndax ñàkk tey jii lu lay aar laajte naa fu nu jëm lan moo waral léegi réew mi nit di def lu ko neex bay xañ ñeneen ñii ñu xëy am jàmm lii ma ëlëm kuy xëy fajar mbaa nga guddee wàcc yaa ngi xalaat kuy kar la këf li nga yor sooy bañ mu daal di la jam guddeeg bëccëg muy lëndëm ak leer amul fu ci le fu ci wóor kaaraange ñàkk na lool luy aare tey ku ko xam ay ndaw la nuy xëy ne coppet yóbbu mbir yi du leer teg fitna ay mbokkam ak waajur ya wër bëgërëm kuy yor palaas mbaa nga xëy yor magasin ki boutique di daan sa doole ak ay fortaatu loo mën a am yeesaa mu neex ba ne lool ngay jaay di jënd di jaay yeesa mu def tekk boo lekk tàng ngay bëgg a xam ngay dunde yaakaar da xëy bés ñu daal fa jaar ngay dunde yaakaar da xëy bés ñu daldi fa jaar toj say palaas sàcc sab xaalis di tiire di dem ngay woo ñi fiy takk der doo leen fa gis wala boog ñuy bàyyi ñee ba ñu dem ñuy soog a agsi acam suñ kër yi ñoom lanu daa yaakaare aar bu wóor tey jii sa kër lañu lay xëy fekk rey la ci jam jur fi yar bam di xëy baax bés ñu daal ne saraax jël jur daldi la fitnaal mbaa ñu rey la itam te koo ci rey dañu lay xëy jël si daal ne la ciix ne ràpp daal di la tëj dootal di fóot ak a lem kaaraange jot na ci kuy mbindeef nga am ko bu wóor muy mag di ndaw góor la mbaa sax muy jigéen fu mu jëm kaaraange ndaw waajuram ñoo yor ko nan di ko xool ndaw am xelam daa matul bay xel li ak di xalam kaaraange réew mi ñi xëy yor réew mi ñoom la fi war ban man di xëy ñaqi teg cey ñuqi bay sax yi ñam suñ réew mi man lii ma gis fii menn xel dalatul lii moo waral saak sa ngëm kon man nga jóg te nga dem may dox di dem jëm ca saa maam laaj ko lii ñu ma wax kàddu yi sama maam a ngi kuy nit na déglu te gëm maam naa mësët nang fi xam kaaraange tey bi fi wóor yàllaa ko yor kon saxal ci njub te moytu mbuxum gëm yàlla gëm yónnenam bii ak sëriñ si nu am tey fonk téere bi alxuraan mi dàq fi lem jàppal ci lii def ko sab ndénkaante ngay moy tooñ jël naa ko maam maa ngi dem yàggal fi wér na nga am jël naa ko maam maa ngi dem yàggal fi wér na am satu ndam bi tàbbi na fii ci géew bi di bàkku tey sama kem bi sama kem amul file gaynde du maasu bëy ku fi dégg daaj ba wa ku ma danga ko tuub ku fi dëkk Fatima bintuloo salaamun aleykum bi nuyoo wóor te cib jullit moo dàq bonjour Adja Fatou Binto mooy samaw tur satub ndam la may jigéen ju man góor na ngeen gëm ne ab loo yen du tàppet ma ne na ngeen gëm ne ab loo yen du tàppet ku koy sikki sàkkab dof la buñ yoor dama jekku way teg am filiñ yéen samam xel dafay taw lolli ak noor samay kuu dafay dal benn du cay moy damay mbëkk tey pour damay dóor damay mbëkk tey pour fañ damay dóor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 mustafilun failun mustafilun failun tiitaange ak njàqaree xëy not ma bis ba ma jug far tàbbi cib gott bopp naataange mooy li ko gaw tiitaange ak njàqaree xëy not ma bis ba ma jug far tàbbi cib gott bopp naataange mooy li ko gaw déeg baa nga fee teg wetu penkoom nga soowu bayit dex gaa nga fay riir soowu bayit dex gaa nga fay daw te géej géej riir di bëmb ca kaw déeg baa nga fay teg wetu penkoom nga soowu ba it dex gaa nga fay daw te géej géej riir di bëmb ca kaw noonee ma àgg ne faax toog tey xalaat li ma gis ciy xéewal ak neex ba far gëmmentu ñëw ma nelaw nelaw yu diis am ku ñëw daldi mayee na ma yow lan moo di say tànk may wax bëgg a doon ku ñu naw dal ne ko man kat sama tumuraanke ak ni ma def tàbbi ci àll bi tey féeteer lu dëkke di daw ak jaxasoo moo ma teg lii lépp ndax sama baay lan rey ba may ndaw ci ak tooñ tiis wadal sama kaw ay waxambaane ko kar fitnaal ko jël la mu yor noppi ca daal di ko faat dem kenn xamul fu nu aw suñ dëkk beekat dangay liggéey ba am sa alal sàcc sa fopp ko di wéy sa xol di dëkk ci wow gis naa fa ndaw lu ñu jël it fat ci biiru tabax rey ko fa daggub cëram yóbbaale jëf la ju sew gis naa fa ndaw yooyu dañoo xëy génn seen këri bàyyi daldi ne dem ba nii nii dellusiwaatu nu yow gis naa ko xemmeen jigéen far doon ko sàkku amul lam soxla woon daldi koy faat rey fa soxna su yiw ak yenn ñaawteef yu am foofee te tudduma leen man jàq naa lool te tiit naa wan mayoon wu ma aw mu naan ma neel tekk fëggaatal sa ndéeg bu ne tey naa wax la waati wolof yooy def ko day taxaraw ndéem bëgg ngaa sax ci ak njub doon ku ñépp di weg mucc ci tiis yeeg lu diw ay sax ci jàmm ku yiw del mooy ci kaaraange aar sa bopp aar sa njaboot bul def ku sàggan na ngay ko moytu di bew jublul ci aw yiw te foo gis jëf ji bon na daw xiiral sa bopp ci ak sellal di fàggu lu lew xamal ne loo fi gis muy jëf ju baax la ca gën dooreel sa kër njëkk boo seeroo ngëneel dana ñëw aaral njaboot gi te yar leen njëkk sas ga di am ngay tànn way jur wa ngir muy doom ju ñépp di naw toqantaluk farataak sunnaay li war la ci ñoom yar leen ci islaamu sun kaaraange bul di nelaw bu dee dangaa jiite gox boobee nga féete itam daa war la ngay saytu seen kaaraange bañ di selaw ndéem yaa fa jëmmi njiit way dëggu mooy li la war saxal ci aar leen tabul sàggan ne yaa ne ca kaw farlul ci laa biire saw askan ñu sax ci setal ndax dëkk ci salte mën naa tax tawal ya di tawal law farlul ci laa biire saw askan ñu sax ci setal ndax dëkk ci salte mën naa tax tawal ya di law saa buñ la tabbee sa njiitum réew ma fàttalikul bis bañ la doon fal di jël yaakaar ya aj ko ci yow fexeel mu leer fàggu alkaati yu farlu ta ñuy saytu ñépp di leen aar fitna dootu fa xew yiiral sa askan wa bul cay xooli xëy jaki seen koo war a yar yar ko kon kaaraange sax fa nga yiw xamal ne buur ba ak baadoola ñépp a ca réew mépp yaa leen jaboote yaay ki leen war a gaw dénkaane baa ngoogu ngànnaa yoo ko yow ta nga wéy foo man di jëm dee ko jiital ngir nga mucc ci bew man tam ma ñaan buur yàlla aaru bu mag sax fii ci àdduna feek moo ngi melax ak taw man tam ma ko ñaan buur yàlla aaru bu mag sax fii ci àdduna feek moo ngi melax ak taw sax fii ci àdduna feek moo ngi melax euh, ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp euh, di leen ziar te di leen jox seen wàccuwaay di jégalu bu baax ci coono yi ndax ku ne xam na ni yitte yi bari Euh, tey mbir mi guddi na ngeen bàyyi seen yi te yëpp ñëw kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen jaajëfal euh, ginnaaw loolu nag bi nga xam ne sant nañ bu baax julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ngi santaat bu baax a baax waa Mountakha Shora ndax ñun soxna yi nga xam ni ñoo bokk ci Mountakha Shora ci biir kuréel gi lañ bokk kon mel na ni yëf yi suñ yëf la suñu wëlbati ko waatee nag dara jàllee ñu ko tuddee ñu ko euh, sargal ñu ci loolu maanaam mbégte mu rëy la moo xam si ni bépp soxna boo xam si ni yaa ngi ci biir Moultakhas Shuara am nga ci mbégte moo xam si ni kawe na ñoot euh, ñuy ñaan rek euh, bépp soxna boo xam si ni teew nga fi wala képp koo xam ne teew nga fi te it ngay sopp taalif wala taalif di la neex wala nga koy nga ciy yëngu nga ñëw bokk ci kuréel gi ndax lu ama am solo la tey nit ñi nga xam si nii ñoo ngi ci biir wax dëgg yàlla rëcc wuñ ko ndax ay nit ñu baax a ngi ci nit ñoo xamante si ni saa su ne ñu ngi ñuy bégal ci way euh, comme sëñ euh, Mouhamad Lamine li mu ko defee léegi ci alxuraan ji muy way wu neex woo xam si ni tege na ci yoon ñuy santaat bu baax a baax daal di wax ni am nañ mbégte moo xam si ni mënuñu koo exprimer jërë ngeen jëf tamit yéen gan ñi nga xam ne yéen a fi teew ak euh, ñuy sargal ñi nga xam ne ñoo doon def jongante bi Euh, xam ne ñëpp jàmbaar lañ wax dëgg yàlla ñi leen sant bu baax ci teewlu ngeen teewlu li fi xew euh, waaleykum salaam wa rahmatullah Rafah بنا به ينفرد